droit clé USB yaa ngi noonu ah képp ku bugg déglu ay son lamb yu neex mbayang lum ndey faatu ak keneen ku mën a doon son yaa ngi ci biir 10 000 francs lañ koy jaayee voilà ay lu mot presque 300 son 285 son moo ci ne nga def ko sa oto dégloo ko Dakar ba Mali du jeex nga def ko sa kër wala sa place di ci déglu 2 jours du tax son yu jeex kon amateurs yi commandé leen ci 77 804 86 84 wala 77 779 80 aca final Ngagne Sène Papa Ngane Sosokh Jini Sara le 4 février 2024 à Fimela Ngagne moo nu woon gannaaw Papa Ngane Sosokh moom lañ jàkkaarloo Lamine kaay bëggal ma gaay nekk Fimela ndeysaan Fimela eh, eh, Sosokh eh! Ngagne maa bëgg dina ci xaj sal waa Lamine waxal rek attention ah! Pape Ngane. nga jëlee la bu jëlee. dañ daan na Pape Ngane de. daan ko de. booy yaay yooyu. kon Sall bëgg nañ waa fi mu laa yem. waaw waaw. mu ngi noonu bëgg waxoon naa la da ci xaj. aca tout droit. Thank <laughs> you. waa Joal Fadiouth waa jàppo production ñooy organiser lamb ju rëy samedi le 17 ak dimanche le 18 février 2024 tegal nañ mbër yi mise 2 millions 500 mille poids léger 1 million poids lourd 1 million 500 mille animation Ndeye Fatou Adama Jali ak kan ñu ne Momo Ngom le fils de Babou Ngom drapeau bi ñu koy tuddee El Hadji Omar Youm ministre des forces armées maire de la commune de Thiadiaye ah mbokki Joal Fadiouth mbokki département de Mbour Sénégal gi yëpp rendez-vous bi samedi le 17 la ak dimanche le 18 février 2024 fii ci Joal Fadiouth collège de la Petite Côte fa lamb neexee kon ah ñu ngi woo mbëri ak amateur yëpp bu kenn des gannaaw jàppoo prodution moo woote dina neex dina yëngu